asalaamualeykum man Ousmane uh, Baye Goto <laughs> ma teelu siwaat pour ñu yeggari waxtaan bi uh, j'espère que yéen a ngi ci jàmm tey dinañu waxtaanee ay quelques mbir rek yoo xamante ni xew na dernièrement suñu suñu réew ah, damay bëgg a dooree ci mbiru Cheikh Yérim Seck ah, Cheikh Lobs ñu ngi def passe d'armes dernièrement ku si nekk di accuser sa morom xam nga Lobs ay naa fekk lañ yu mag euh, Souleymane journaliste boobu nekk ak yeneen journaliste yu bari ñoom dañu foon yi ñoom ñoo moom Sénégal wala moom sénégalais yi ba ku leen neex ñu woo pour di ko poser ay question yow bu fekkee dangay ngay bind sa papier bindal sa papier rek bu fekkee woo nga nit ki jëlu la wax yow si lam la wax rek nga mën a sukkandiku ba ba ngay am yeneen preuve yéenay ñan ba ñu war leen wuyu ba ngeen war a ama journaliste yi il faut ngeen yem seen place quoi il faut ngeen sa tuuti parce que yéen ñu si bëri ci yéen am na lu bëri lu ngeen def loo xamante ne ñun mën nañ koo bindal ci yéen comme ku mel ne Ibrahima Lissa Faye mooy journaliste bi gën a dooma xaraamee ci Sénégal kooku moom damay lijjanti ay mbiram man personnellement dinaa lijjanti ay mbiram yéen seen plume ngeen yor ak seen journal ak seeni i site ak seen télé ak seen rajo ngeen foog ne mun ngeen intimider ku leen neex ah léeg-léeg sax ngeen laaj xaalis pour bañ a bind ci yenn affaires yi wala pour bind ci yenn yi di fen di accuser ay nit yéenay ñaan yéena moom diñ yam leen seen parce que ñu si bëri ci war nañ ay bagage ci yéen ou pas on peut on peut l'écrire donc voilà nous ce qui nous intéresse ngeen ñu informer juste et vrai ngeen ñu informer ci dëgg dañuy informer ci loo xamante ni amal na askan bi njariñ pas ay règlement de compte xam nga Cheikh Yérim Seck dafa am ñaari Cheikh Yérim Seck Cheikh Yérim Seck le journaliste et analyste pertinent boobu Cheikh Yérim Seck sénégalais yi bëgg nañ ko trop parce que mënta waxal tamit Cheikh Yérim Seck a une très très belle plume c'est un boo xamante ni bu analyser ba pare ba wax ba expliquer li muy wax kenn mënu koo dëndee parce que fu leer la léegi nag mu am beneen Cheikh Yérim Seck bi moom mooy Cheikh Yérim Seck nit kese nit normal boo xamante ni catam be gën a rey mooy bëgg jigéen mais ban góor moo bëggul jigéen maa ko gën a bëgg jigéen un milliard de fois mais peut dama cee am ngor dafa am loo xamante ne aduna jaralu ko quoi dafa am loo xamante ne peut-être euh, sama personnalité dépassé na ko ki ma doon dépassé na may def loolu lu mel noonu ci ci ci ci ci jigéen waaye amul góor bu bëggul jigéen man ak keneen ak keneen ak yem te góor dafa war a bëgg jigéen sax loolu mooy dëgg parce que ñoo sàq yàlla da ko créé pour ñun ñun yàlla créé ñu pour jigéen waa léegi way la problème maintenant yàlla dafa wax ni jullit bu nekk am nga droit ba am ñeenti jabar bu fekk yow da nga am ay différents goûts bu fekkee jabar bu ponkal bu bu am ginnaaw moo la ko bu fekkee tamit da nga am beneen guutam boo xam ne jigéen bu sew bu tuuti moo la neex takkal bu fekkee da nga am guwu jigéen bu ñuul kuk te ñaaw gàtt takkal bu fekkee da am guwu bu xees pecc rafet wala mel na ko ne mais demal takk ku mel ne Cheikh Yérim Seck am na moyen pour takk vingt mais dina jox na ko droit mu am ñeent na wut ñeent guu yu ko neex mu takk leen di si def lu ko neex am na droit sa takk comme de mais dafa bëgg jigéen dafa bëgg jigéen quoi man yaayu Mouhamed rek laa yaram quoi pourtant seex yaram soxna bu macha allah la yor ku rafet ku jekk ku nekk net man xaw ma ku yor loolu doyee beneen jigéen maintenant moom aussi ci beneen côté boobu ba léegi euh, dafa nekk nit bu xaw a jubadi quoi parce que dafay utiliser plémam di chantage ay personnalité ay chef d'état ak yooyu euh, euh, euh, Karim Wade plusieurs fois plusieurs fois te ñun ñëpp xam nañ ne que Cheikh Diallo la Karim doon jox enveloppe pour mu ko yóbbul Cheikh Yaram Seck man am daan ñu ko mbëdee am na ci yéen ñu may seetaan ak dama déglu xam ngeen li may wax maintenant boo gisee tamit ñu koy intimider mooy affaire faar affaire euh, bati affaire naari mais ñun ñëpp Sénégal xam nañu naari ay bande lañ ay saay-saay lañ pas ñëpp nag mais ñu saay lañ yu mag c'est des vrais criminels économiques ñoom avec la complicité de certains de nos dirigeants ak surtout waa trésor ay mbir yu garaaw la ñuy def Sénégal yu doy waar yu garaaw yu doy waar yoo xam tey bés buñ ko révélé bés buñ ci waxee nga attaqué leen te waru ñu leen attaqué parce que physiquement ñu leen attaqué parce que ay sénégalais lañ comme ñoon naar yu bëri Sénégal lañ juddoo seen papa yi sa Sénégal lañ juddoo kenn gënu leen nekk sénégalais loolu tamit ci bopp sénégalais yi ok ah, tey da ngay gis benn boutique naar bu am trois produits trois je sais pas quoi te pourtant depuis vingt ans wala trente ans chaque jour day ubbi léegi wala mu am ñaari télé wala ñetti tele ñu bëri duñu comprendre je vais vous dire am na si ñoo xamante ni drogue jaay am na si ñoo xamante ni su bëri sol bokki sole bokki la ñu def xam nga fonctionnaire yu bëri Sénégal balaa fin de mois seen xaalis jeex na donc dañuy soxla xaalis pour continuer vivre quoi léegi dañu am ci naar bi naar bi jaay la benn télé boo xamante ne mu nga jar deux cent mille wala trois cent mille neuf cent mille mais da nga remplir sa information sa numéro de solde ak lépp quoi boo ko remplir après ñoom dañ koy yóbbu trésor trésor elee mu verse la sa salaire yow moom naar bi la koy verse chaque chaque mois comprendre nga léegi après yow nga dem récupérer foofu sa xaalis loolu aussi lu lu lu jaral lijjante la quoi d'ailleurs maa ngi ci def ay enquête pour créer ci benn dossier expliquer exactement nan lay demee bu para rek je vais le partager avec vous sans souci bu jógee ci loolu dama bëgg a am lu ma bëgg a wax tuuti rek ci affaire wu euh, seen YouTube yi nekk ci ci YouTube bi te yenn ci ñeen di ma te seetaan samay live pare ngeen jël ko enregistré ko def ay coupage daggate ko publier ko seen seen YouTube mu nekk loo xamante ne aussi rafetlu naa ko ok parce que xam nga dernièrement jeunes yi dañoo dégg ne seen YouTube dafay fay xaalis ils ont créé des chaînes ñëpp presque créé ay seen YouTube ok muy lu nice parce que jeunes yu bëri aussi amuñu liggéey bu fekkee mun nañ créer seen YouTube def ci ay contenu yoo xamante ni daf leen di may tuuti weccat man Ousmane Ba je suis content pour vous je vous soutiens parce que man sama souci bi gën a mag moom mooy l'emploi des jeunes ok léegi um, seen YouTube boo ko créer aussi da ngaa war a am capacité wu créer contenu ok léegi nit lu dem créer ay contenu ba def ko ci seenam ngeen reprendre ko mais au ngeen reprendre vidéo bi en entier mais non da ngeen dem ngeen daggat jël ci ay quelques parties publier ko léegi ñi koy seetaan ñoom ci loolu rek la ñu mën a comprendre parce que loolu rek lañu la ñu gis donc ci loolu la ñuy commenter quoi fekk wax ji dafa am fu mu jur am fu mu deewee c'est-à-dire fu mu jógee am fu mu dal ku seetaan live commencement ba fin di nga comprendre wax ji yépp ko mais koo xamante ni benn parti rek recoupage su parti boobu rek nga seetaan doo comprendre fu wax bi jógee ba fu wax bi dalee donc maa ngi leen di avertir képp kuy reprendre sama vidéo na nga reprendre vidéo bi yëpp nga publier ko sa seen scène awma problème boobu c'est pas ce problème bu fekkee ça te permet de gagner quelques sous I'm happy mais ku ci mënul lool boo recoupé samay vidéo nga publier ko sa chaîne dinaa signaler vidéo bi dinaa attaque sa chaîne na leer ci seen bopp ñëpp ñu publier woon sama vidéo ay dagget supprimer leen ko avertir naa leen nag parce que man ma de avertir naa leen da ngeen ko supreme bu ngeen mënul reprendre live bi yëpp ngeen n'utilisez pas mes vidéos sinon dinaa signaler seen seen te dinaa leen attaqué parce que am na ay système yu ma attaqué seen seen voilà ba ñu jógee loolu ñu jàll ci leneen xam nga ah, fan dafa am coow suuf bu rey bu am senegal ñu tudd ci turu Babacar Ngom bu Sedima ma bëggoon ci wax tuuti rek xam nga Babacar Ngom euh, sénégalais la comme ñoon ñëpp mais nañu waxante dëgg rek Babacar Ngom euh, du n'importe quel sénégalais Babacar Ngom jaar jaar dafa juddu ci famille boo xamante ni amuñu xaalis c'est vrai que sonnuñu woon ñu ngi doon lekk di naaneetu di vivre seen vie mu ngi doon jàng jeune étudiant boo xamante ni amoon na bourse pour dem jàngi France pour devenir ingénieur mais non dafa amoon vision bu claire dafa amoon lu mu gëm am lu mu bëggoon mu nekk ci nekk ci nekk ci nekk ci nekk ci ba yàlla suturaal ko tey mu réussir ay prosem encadré famem jàngal leen moom ci boppam moo choisir sax ay doomam domaine yu ñuy jàng pour bu ñu paree ñëw gérer entreprise familiale bi léegi ci biir doom yi am na ñu ñi ñi xam am na ñu ñi xamul c'est vrai Anta a siw c'est vrai que moo si gën papam lu tax loolu moom papam rek ko xam Euh, Babacar il a beaucoup souffert dafay pour am la muy am tey léegi nag partout ñu ngi koy attaque partout partout ñu ngi koy attaque euh, fan mais dama ci bëggoon andi ay quelque leeral xam nga moom dafa dafay employé ay sénégalais yu bari waxuma ay centaine de milliers de sénégalais lay employé am na ay am ñu muy employé direct ak ñu muy employé indirect mais am na ay milliers de sénégalais yoo xamante ni tey bu ñu mënee jox seen famille ñu lekk ñu naan ginnaaw yàlla Babacar Ngom moo tax léegi kooku kenn waru ko ah kenn warul wàññi doolam vous comprenez léegi li Sedima di def moom la yeneen entreprise yi di def mais yeneen entreprise yi def lu tolloog li SEDIMA di def Sénégal majorité bi ay entreprise étrangère lañ buñ jaayee seen produit ba pare xaalis bi ñu ngi yow bu Europe lu mel ni ay Auchan ay Carrefour ak yeneen SEDIMA nag bu jaayee produit am ba pare xaalis bi Sénégal lay des foofu la koy investiraate kooku kenn warul wàññi dooleem vous comprenez léegi ci biir loolu business am di màgg business am di màgg ba mu gis ne dafa war a investiraat pour ubbi yeneen pour yokku euh, euh, euh, business am ok pour mën a embaucher plus de net surtout jeunes yi mu xam ne dafay soxla terre Dakar amatul terre muy war fan la mën a am terre fu mu implante business bu beesa léegi ñi ko doon jàppale ci wor bi ils ont vu que parce que sorewul Dakar trop euh, mu dem wut fa trois cent hectares bi mu wutee cent hectares ci commune Sindia bokk ci département mbool ci biir foofu commune biñ defee seen délibération pour jox ko suuf bi ñoom ñoom ñoo waroon def seen enquête pour xam ndax suuf biñ ko jox est-ce bi moo ko moom wala suufu ay nit la commune bi deful enquête bi mu war a def domaine defuñu enquête bi ñu war a def ok léegi conseil municipalu Sindia bi ñu réunir ba octroyé Babacar Ngom trois cent hectares ca biir loolu commune Sindia dafa laal ca suufu commune Njagañaaw Njagañaaw seen commune ak commune Sindia dañoo takkaloo ñu laalaa ci soixante seize hectares soixante seize hectares yàlla def mu bokk ci village boo xam mu ngi tudd Ndengler man dama am histoire bu ma am Ndengler après loolu dinaa ci ñëw bu loolu amee léegi waa Ndingler villageois yi nga xamante ni ñoom moom 76 hectares yooyu noonu ama 76 hectares sur 300 y a plus de 200 y a plus de hectares yoo xamante ni légalement mu ngi ci commune Sendia donc on parle benn partie bu ndaw 76 hectares ñooñu ba ñu révolté dem ci commune bi commune bi faalawu leen après bi Babacar ñëwee commencé exploité terre village waaye jóg takku booloo pour defendre seen terre village waaye nag ci dëgg lañ nekk nag tamit quoi parce que ay terre la yoo xamante ne seen maamaati maamaati maam yi ñoo si doon bay te ñoom ci loolu lañu ñu sukkandikoo pour am récolte bu ñu mën a utiliser pour lekk ok léegi euh, mu am ay journaliste ak ay policiers yu jóg attaqué Babacar Ngom ok loolu du yoon c'est pas normal rafetul parce que am na nuñ ko mënoon lejante d'ailleurs am na ñu ne doomu Babacar Ngom dafa dem ci suuf bi attaqué villageois yi ak tracteur am ak patate pata loolu ay fen la amul loolu employé la du doomu Babacar Ngom xam nga man défendre ma Babacar Ngom de xaw ma ko sax xaw ma sax ku ko xam aw ma benn relation ak moom comprendre mais niñ koy attaqué fan yi dafa ñaaw Babacar Ngom il est sénégalais ñun te li mu def Sénégal ñu su bari ci ñun suñu bàyyi defu ko Sénégal yaa ñu waxante dëgg rek dëgg neexul vous comprenez et eh suuf bi délibération bi du tey dafa yàgg parce que c'est vrai que Anta Babacar Ngom def na erreur ci publication boobu mu def ci page am sur Facebook ba pare après mu supprimer waat ko parce que affaire bi si ñëw wuñ ko 2019 c'est vrai que 2019 bi Macky Sall waxaat na ci quoi pour que nañ ko octroyer suuf bi nañ ko defal papier yi ñu ko defal parce que dafa investir emploi ok euh, parce que décret bii nii Abdoulaye Wade moo ko signé woon c'était en deux mille quinze non astafurlah wooy Macky Sall la du Abdoulaye Wade deux mille quinze la euh, décret 2015 548 du 23 avril 2015 publié au journal officiel numéro 68 54 du 27 juin 2015 tey nii la def cinquante ans net ba ñu ko octroi depuis cinq suuf bi mu nga ci turam ok te instant bi la pare pour def pour créer emploi vous comprenez léegi euh, li ñu waroon def rek mooy état bi dafa waroon trouver beneen suuf jox ko village waaye ñu continuer seen mbay wala Babacar Ngom moom ci boppam mu jël 76 hectares yi delloo ko villageois yi commune Soundial jox ko feneen mais c'est vrai que 76 hectares yi mun na yàq projet bu manqué ci 300 hectares yi mun na yàq projet bi mu bëggoon def. mun nañu aussi délocaliser ah terre yi quoi c'est-à-dire euh, projet mu ñu délocaliser ko ci yeneen terre mais il faut ñu ñi xam ko projet bi mu bëgg a def dafay créer emploi ok que villageois yi lañ bëgg a du créer emploi amul revenu pour état bi par rapport que Babacar li mu bëgg a créer am na revenu par état pour état parce que dina fay ay ay impôt dina fay ay tax dina créer emploi dina fay ay salaire donc lépp mën nañ ko waxtaanee waxtaan la rek boo juboo bu comprenez commune bi am na ci part de responsabilité villageois yi am nañ ci part de responsabilité état bi am ci part Babacar Ngom am na ci part de responsable ñoom quatre concernés yi ñoo war a toog ñu trouver solution Babacar Ngom képp koo xam-xam ne soxor il musulman te du tey la commencé liggéey depuis ay jamono ba léegi gis leen ko mu def fi ay tooxi dooni à part erreur bi ko dal ci affaire u acculé quoi comprendre ah, erreur la ñëpp lay dal ak situation bi léegi nag ay jaar-jaar la ay jaar nit ku nekk da nga am ay jaar-jaar quoi vous comprenez aussi ma leen di conseiller que ñoom compagnie bu toll na ñoom dañoo war a am conseiller en communication c'est vrai que ñu ngi doon employé euh, Moussoukoro Diop xaw ma ndax mu ngi foofu ba léegi mais Moussoukoro macha allah il maîtrise bien la communication mais je pense que euh, Anta waru woon sa def publication boobu mu def parce que du responsable tam du rôle am on parle pas d'elle on parle de son papa c'est son papa qui doit prendre les choses en mais main expliquer nit ñi lan moo ci nekk ba pare mu bàyyi man xam naa ne soixante-seize hectares waa ñëwul dara ci lu ma def mais atam mun na délocaliser ay ay entreprise am mun na ko yow bu Gambie mun na ko yow bu Guinée mun na ko yow bu ci yeneen pays te boobaa ñun rek ñoo ci perte quoi problème boo gës am na solution vous comprenez may lan ma tuuti ma ñëw jox ma lan may une minute rek j'arrive s'il te am naa lu bari lu ma bëgg ñu waxtaane mais may laan ma rek am na ñoo xamante ni am lu ma bëgg a wax ak ñoom rek une minute ma tontu kii rek ñu continuer may laat ma rek du yàgg dara du yàgg dara ma ñëw ko ñu yàggale ma toppatoo ñii rek parce que am na lu ma bëgg a gérer fii quoi ma gérer ñii rek ñu mbind rek leen rek ñu yeggali parce que man émoticône émoticône euh, face bu kanam bu mer boobu noonu da yàq dafay yàq euh, live bi quoi donc euh, ñooñu képp ku ko utiliser rek dama lay bloqué donc may laan ma ma bloqué ñooñu continuer quoi ah, ma bloqué ñooñu après on va continuer voilà c'est fait waaw ah, ñu ko si defoon ñëpp daw ngeen de dindi ngeen ko de lu tax ngeen dindi ko ñoom ñëpp ku ko rek dama lay bloquer sans souci voilà voilà ok donc disons la vérité Babacar Ngom du suñu ennemi il est pas notre dërëm nag xaw ma ko xaw ma ko man duma ma kuy jël xaalisu jàmbur pour ma lay défendre du ma def loolu ku ma xam loolu su ma ko doon def noppi naa bu yàgg donc nañu ñu delloo ci seen xel nañu ñu delloo ci seen xel feeg lundi mardi plus tard da ngeen dégg Babacar Ngom def sortie c'est sûr ah, wax ne delloo amul problème da koy delloo 76 hectares yi moo gën a tuuti quoi ci lu mu mën a am moom comprendre da koy delloo tey li mu def aussi la waroon def bépp sénégalais nga projet nga bëgg a inverser ci réew mi nga am ay preuve yu leer am étude de projet bu leer nga wone sa financement bu taxaw boo defee demande pour ay terre gouvernement bi dala koy jox am na nag ñoo xamante seen octroi wu terre mooy gën gaaw parce ñoom gouvernement bi xam na leen peut-être euh, def nañ seeni preuve peut-être am nañ ay relation et tout ça Sénégal xam nañ nu ñuy fo nu muy ñu ñëpp xam nañ nu muy de relation la du yoon na quoi mais malheureusement loolu moo fa am donc euh, man tey su ma amoon projet bu dagar am financement bi su ma ñëwee état bi dafa may jox terre foo xam ne am na terre léegi nag Sénégal dafa bëri ay famille yoo xamante ne seen maam da daan bay fii ñu ne suuf boobu ñoom ñoo ko moom mën ko moom dafa am yoon booy jaar dafa am ay papier yu mu dafa am ay démarches yu mu ñu bëri ñoo xamante ne depuis jamono yi doo comprendre lañ lañ nekk di exploiter terre yi ba tey nii ñu si bëri laa won titre foncier bu nekk si seen wala bàyyi bu nekk si seen tur parce que xamuñu sax ni suuf yooyu état bi moo ko moom en réalité suuf bi état bi moo ko moom état bi moo moom suufu Sénégal yépp avant indépendance dafa am loi bu génn ñu ne képp koo xamante ne yaa ngi doon exploiter benn suuf nga bëgg ñu ñu su moom suuf bi dama la nga régulariser sa suuf lebu yi surtout lebu Cap-Vert yi ñu su bëri dem wute ay kayit xam nga lebu yi ñoom comme ñoom Dakar lañ dëkk centre ville ak li ko wër ñoom dañu yàgg côtoyer euh, administrateur yi dañ yàgg côtoyé tubaab bi dañ yàgg côtoyé colon yi dañ yàgg côtoyé intellectuel yi donc ñoom xamoon nañ fan la ñuy jaar pour régulariser seeni terre donc moo tax ñu si bër ci ñoom fu mu toll ni yor kayit quoi mais suuf bi Sénégal état bi moo ko moom te état bi am na droit jox ku ko neex ok bañ décentraliser affaires yi léegi commune nii ñoom ñoo am droit ak seen conseil municipal réuniru def recherche ak étude ba xam ne suuf bii ne bokk na ci commune bi commune bi moo ko moom ñu am droit def seen délégation pour jox ko benn nit na à partir aujourd'hui suuf bi mu ngi ci turu diw parce que projet bii la fi bëgg def parce que projet bi intérêt wu comme euh, intérêt local la quoi c'est-à-dire dina créer ay emploi ak yooyu mais pourquoi ngeen di attaquer Babacar Ngom mais attaquer leen euh, euh, compagnie étrangère yi lañ jël ci suuf senegal moo ëpp ay 300 ectare sama way bu xante dëgg Auchan Carrefour naar yi ak ñeneen ak ñeneen politiciens yu bëri am nañ ay tool partout ci àll bi ab Abdoulaye Daouda Diallo du barke dem la fi may 55 ectare fii ñàkku ñàkkurab ay ay gorom 55 hectares yooyu Abdoulaye Diallo fan la ko moomee fan la ko baayam moomee fan la ko maamam moomee il vient de Podor amul suuf foofu lan lan moo ko may droit mu maye cinquante cinq hectares ay gorom jàllo picc mu ngi nii nga xamante laay fam yëpp da koo ñefe tey mu ngi nii héritage am ay suufam la gars yi récupéré Mbambilor jox ko ay jàmbur Sicap moo ko récupéré par la force ay doomam ak ay sëtam a ngi ëpp nañ deux cent gos ñoo xamant ñu ngi ni mënu ñoo jot ci seen suuf mais looloo gën a garaw sa waay bàyyi leen Babacar ngoom laissez-le tranquille dafay investir dafay liggéey dafay créer emploi am na ay scandale yu gën a garaaw li fi Babacar Ngom def nañu wax ci lool nañu wax ci pétrole bi nañu wax ci zircon bi nañu wax ci ci ci ci bois bi nañu wax ci ci ci ci licence des pêches nañu wax ci milliards yi Mame Mbaye Niang sàcc nañu wax ci lool parlons de ça su ma doon Babacar Ngom na terre yi 76 hectares yi ma delloo leen bu fekkee mënuñu ko trouver yeneen terre bu fekkee mënuñu ko bàyyi mu liggéey normal na jël ay alalam mu génnee ko Sénégal mu dem investir feneen bu ko kenn amer de Babacar Ngom mos ngeen ko dégg ne fayul impôt pourtant Youssou Ndour mu ngi du fay impôt pourtant bari na bari na bari na ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay personnalité yoo xam ne fayuñu impôt bari na ay entreprise yoo xam ne ñu impôt Mais parlons de ça, ça way. May leen ma une minute. May ma une minute. May leen ma ñu yeggali waxtaan Muna declaration ci sama diggante ak Ousmane Sonko loolu dinañ ci ñëw ci kanam tuuti voilà loolu daal <laughs> euh, nangi euh, cent quatre vingt laa njëkk a teg sama tànk da ñëw ba Bambey nga wàcc nga dugg à ah, droite dugg ci kaw àll àll bu sori moom fay da am ay néegu ñax rek moo fa nekk amul bâtiment ah, dafa am sama benn dëkkandoo bu tudd Max Maguette Ngom bu dëkk foofu ah, koñ quoi waa ji dafa jóge woon ci àll bi ñëw foofu mu ñëw kër ñoom Moussa Sen. Quand je parle de Moussa Sen, je parle pas de Moussa Sen, l'administrateur, je parle de l'autre. Que ñoom Madiouf quoi ñoo xamante ni aussi ay cousin wu Souleymane Faye Santer lañ xam sama koñ la dagg ñu que la dafa amoon soxna rek Cap Sarr ndeysaan ak ay relation quoi mais je la mu ngi juddoo Sudé Cap-Verdien quoi booru garage pompier di fréquenté Medina mais après ñu tuxu si suma koñ yaayam say si woon foofu Mariama Kan yàlla na ko yàlla yaram mer bu baax euh, léegi sawaay jabaram am ndoom ma madam dem ci ngenteli quoi tudd c'était la première fois may dem côté boobu quoi ñu ngi àndaloon DJ Tafa Tafa Tall <laughs> ju dem foofu amul courant amul dara ñoo yóbbu suñu groupe on a installé def ay quatre jours village bu neex macha allah nature bien ñu oyof euh, jour boobu ci laay xam ni village boobu aussi la du jaara gay du du gay du jaara c'est la famille de euh, Guèye Kouyaté géwal yi dekk mbuur ñi dekk Mbour xam nañ la ñoom Amadou Guèye Kouyaté ñoom Ousseynou Guèye Kouyaté Ousseynou suma xarit la bu baax euh, Ousseynou mu ngi Suisse moom je pense euh, ñoom Matar ñoom ñëpp xam naa lan mbay mbay sama copain mbay seen mbay yàmbu moo ma leen introduire woon mbuur amoon naa fa kër après suma benn grand laa ko jaay quoi amadel Tall grand bu extraordinaire ah, donc xam naa Ndeye Nguler musuma xalaat ni sax dinaa toog un jour ba Ndeye def benn débat quoi national mais connexion la rek yàlla moo ko tuddee noonu quoi donc xam na Ndeye Nguler bu baax ah, ngeen xam ne que Babacar Ngom am na ñu bëgg a dal kawam rek mais suuf du débat bu war a compliqué quoi je sais que dina delloo suuf bi je sais que dinañ ko trouver suuf feneen mu continuer projet parce que njëriñu Sénégal moo ci nekk ak sénégalais yi. voilà donc loolu yëpp amul problème ñu continuer débat bi ñu continuer waxtaan bi dugg ci yeneeni mbir euh, fan yi Youssou def na benn vidéo di uh, di woone di woote panafricanisme panafricanisme uh, dafay délire rek parce que xam nga Youssou c'est un grand Youssou day naan day naan bu baax sax ba léegi nii may wax ak yéen day naan dafay dafay dafay dafay day naan loolu moo xam mais drogue sax utiliser bu weddee li ma wax rek ne porte plainte amul benn problème euh, donc day déliré quoi day déliré ba pare c'est un maître chanteur loolu la lu tax Youssou Ndour bañ Karim Wade ak Ablaye Wade parce que ils ont tout fait pour Wade def ñoom lu ñu bëgg lay Wade faa la woñ moo tax il déteste lay Wade loolu sax moo waraloon mu jàppale Macky Sall pour Macky jël pouvoir bi Youssou Ndour ci domaine Afrique ba mu daj moo ci man mooy musique ak yooyu quoi liggéeykat la ku mën a liggéey la laay fam yëpp da koo ñafe vous comprenez mais il est pas sérieux du nit bu sérieux ci xaalis alal da koo jaral lu ne te bu ngeen xoolee Youssou Ndour ñu muy ànd ak ñoom depuis des années amul kenn ku ci réussir vie am moom rek mooy réussir quoi vous comprenez te voilà ñun xam nañ Youssou quoi Youssou euh, l'observateur tey bu fekkee dañoo bëgg a benn rek ci ñu ay biiral ay net ci ñu ay ay ay tëddee ay jigéen je pense que seen patron ci ci seen patron la ñu war a gën a bind parce que ñun ñëpp xam nañu Youssou Ndour am na ay doom yu dul jeex yu bokkul yaay ñun ñëpp fu mu dem Europe di tëgg concert am na ay nit yoo xamante ne ñoom ñoo koy localiser ay jigéen yu tooy quoi am na sa benn caméra mooy liggéeyam Mbaye Ndiaye Faye lu tax Youssou Ndour respecté ko lu tax mu téye ko mu fonk ko moom moo ko doon wutal gale mu leen di tëddee fu ñu dem concert ci Europe jigéen bu mu tëddee xam nañ ko man Ousmane Ba maa ko wax donc l'observateur bu ñu bëggee bind ci kuy tëddee ay jigéen ci un professeur un professeur c'est euh, Youssou Ndour qui le vrai professeur c'est un c'est un expert en fes en matière de fesses Youssou c'est l'expert daa bind leen si ñoonu Souleymane Jules Ndiaye doo bind ndey si sa patron bindal si sa patron waay kooku moo dàq doxaan ci kaw suuf moo dàq tëddee ay xale ci kaw suuf Youssou Ndour nag ku ko laal <laughs> dee wala daf wala feebar man mënul ci man ñeeri mali mënoo ko ci man man maa lan ko wax wallahi azim booy dugg sama mber di faatu xam nga L'autre jour, je parlais de Ayaase. Ayaase ban mérite la am ba ñu war ko nommer PCA wu Grand Théâtre Ayaase mënul woy Ayaase deful deful ci musique c'est deux ans mais lépp rek Momar Ndaw la Momar Ndaw ak Adja nii comme mburu ak lem lépp lu mën a am ba ñu nommer ko PCA wu euh, Place du Souvenir ao Grand Théâtre lépp Momar Ndao la Momar Ndao moom moo am doole palais ba ñu koy nommé lool mais Adja Sy dafa gën a mérité Umar Pen place boobu mais gënu ko mérité Umar Pen est-ce que Umar Pen gënu ko mérité donc parlons de ça Adja Sy Prince Ndiaye Prince Ndiaye ça te dit quelque chose président yi ça te dit quelque chose lejante lool robb bi robb bi mu la joxoon ça te dit quelque chose ak dàll yi ak xaalis bi président yi benn trian boo xamante ni il est recherché partout ci dëkku naar yi kooku ah, aja kooku daan na doxaan agence yi te Prince ak Youssou Ndour ay xarit benn bakkan lañ te période boobu aja mu ngi sëy mais looloo gën a garaw te sama xaalis nga fay ma ko ngir yàlla ak yeneen te mayu ma la ko de dangeen ci mar moom may naa ko amul problème yàlla na suuf oyof ci kawam mais yow sama xaalis danga ma koy fay par la ma koy remboursé parce que baadoo la nga bu mag voilà attends une minute rek attends une minute ma ma ma ma ñëw waaye wax leen Adja lan moo tax ñu war ko nommé PCA wu Grand Théâtre lan aja defal leen ko interview defal leen ko interview en en français ngeen xool du làkk tubaab déggu ko man illettré nelaar bi maa ko gën a dégg tubaab billaahi wal kitaab déggul tubaab vous comprenez ñu koy fay suñu cinq millions par mois di ko jox ay indépendant pour lan daf ko gën a mérité yeneen yeneen santar yoo xam ne def nañ ci seen jaloore voilà loolu sax dafa amul solo Adja dafa may taadal rek parlons de DSCOS DSCOS euh, c'est la direction de la surveillance du contrôle et de l'occupation des sols boo xamante ni direction bi euh, mu ngi nekk mais gendarmerie ñoo ko gérer ñoom ñoo gérer affaire suuf Sénégal euh, mais fan yi wala ci année yi ñu génn dañu daanal ci ay kër dafa bari kër yuñ daanal su bëri ay baadoo la ñoo ko moom c'est-à-dire ay pauvres yoo xam dañoo ñafe seen life yu bëri bu dañoo lafe seen life yëpp pendant des années ñooy ñafe di dajale am ni si ñoo xamante ne ay jeunes fonctionnaires yu dem leb xaalis ci banque yi ak feneen pour tabax ñun ñëpp xam nañ ni tabax kër dafa métti da ngay gis koo xam ne dix ans mu ngi tabax du pare alalam yëpp mu def ko ci kër te ñun ñëpp Sénégal yàlla dafa def suñu rêve bi gën a mag mooy tabax kër Sénégal rek nga di di dund laay fam yëpp day ñafe pour am kër am fu mu suturuloo yeneen dëkk yi nga gis yëpp nit ñi amal ci dëkku ñag yi dama la ay Côte d'Ivoire dama la ay feneen tabax kër bokkul sax si seen si seen si seen si seeni projet su bëri dañuy luwe luwe ba ci dëkk tubaab bi fii da ngay gis ko xam day luwe ba dee amuñu problème boobu comprendre mais sénégalais dañoo am boobu aada moo mooy ku si gis rêvam mooy tabax kër mooy takk jabar loolu suñu rek la am donc nañ ko sàmm léegi imaginer nga nekk ci àll bi pendant des années ngay ñafe sa life li nga dajale yëpp nga ñëw jand ko terrain tabax sa kër un bon jour gendarmerie jógee fale ñëw ak seeni caterpillar daaneel li nga tabaxoon yëpp c'est des ñu rase ko en une minute loolu bëpp doomu aadama bu am xolu def ko boo deewee yàlla laq la man maa la ko wax te balaa ngay dee da ngay torox ci kaw suuf parce que doomu adama kenn du ko toroxal pas ci façon boobu donc brisé nañ famille yu bari dofloo nañ ay nit yu bari te loolu Macky Sall mooy njiit loolu yëpp Macky Sall la parce que tey problème boo gis ci kaw suuf mën nañ koo rag c'est vrai que bu fekkee da ngay jënd suuf da nga war a def say recherche nga dem jaar fi nga war a jaar yëpp nekk ci suuf bi est-ce que suuf bi ki la koy jaay moom moo ko moom booy def vente bi aussi ngeen def ko devant un notaire pas notaire bu trian de notaire bu jub parce que bëri na ay notaire yu mbaame yu trian sa sàcc yu mag bu comprenez après nga yor say kayitu leer nga dem wut sa autorisation de construction après nga construire de construire nga construire bu boobaa da ngay nekk ci yoon mais bu fekkee jaaroo fi nga war a jaar doo xam ban problème moo nekk si suuf bi léegi nag elie ñi sanctionné promoteur bi nga xamante ne moo jaay foofu wala ñi sanctionné wala domaine direction domaine bi la jox autorisation de construction bi ah mu ngi encore devant le juge te gendarme yooyu noonu DSCOS amuñu droit daanal kër ñoom il faut dossier bi pare ba juge bi instruire leen nañu daanal kër gi ñu doo ko daanal kër gi mais am na si ñoom comme ñu mel ne colonel waxoon naa leen ci ñoom ci sama benn live am na deux te dinaa ñëwaat ci ay mbiram c'est pas normal nañ bàyyi nit ñu toroxal ama Marième Faye Sall sama live bële bële beneen bi passé waxoon naa leen mais dafa tawat yaram bi neexul bon loolu tax ba tey ne gis nga ko jaay la xel ma ci dese Malick Sébi Uh, yàlla yaram yàlla na yàlla suuf ci kawam nit ku baax la woon man personnellement xamuma ko may xam naa lu bëri ci moom ku oyofoon la woon ku bëgg nit la ku doon dimbali doomu aadama la ku doon dox mbokk la ci ñëpp lay dem ci tarixa yëpp lay dem ci chrétiens yi heure bu seen événement yi jotee day se déplace mu dem ku bëgg nit ku oyof ku naturel kooku nit la bu baaxoon sax ku nekkoon nit ku nite woon yal na yàlla yokk leeram gis nga ci famille boobu maam Abdou Pape Malick ak sëriñ seex man ñetti yi dañ maa yéem trop sëriñ seex xam-xam bi nekkoon ci bopp bi mosuma koo gës ci benn doomu aadama mais il était controversé quand même ñu si bëri d'accord wuñu ak moom maam Abdou kooku Misère la woon Misère kooku beneen dox euh, Pape Malick moom mbaax dafa nekkoon ci moom moom mbaax leer mbaax bu yéeme moo nekkoon ci moom ku moom nit ñi xamuñu ko donc voilà pour vous dire rek que amul solo mais lépp dafa war a rafet pas normal loolu dañ ko dafa war jeex dafa war a problème boo gis rek am na nuñ koy régler parce que aussi état dafa mel ni kilifa ci kër rek kilifa ci kër bu amee sëy yu yongu ci dem mu rek ko bu amee ay problème yu am ci kër gi moom moo koy réglé c'est la même chose ak état état bu amee problème bu am ci dëkk bi moom moo ko war a réglé moom moo war mu réglé ko parce que loolu moo tax ñu fal leen mais toujours dañuy jaay doole toujours dañuy dóor nit ñi toujours dañuy toroxal ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen fal ñoom ñooy seen patron dañuy liggéey pour ñoom état bi di jël police di leen utiliser di jël gendarmerie di leen man j'ai nami ami policier dafay rus sa nee na ma grand dama rus quoi parce que man dama euh, waat ni damay représenter état bi damay def sama liggéey et tout ça mission la boo xamante ne man maa ko choisir mais léeg-léeg dinaa def loo xamante ne neexuma quoi damay exécuter ay ay ay décision wu samay supérieur mais je me sens mal quoi damay gêné wu ma ne ko effectivement loolu comprendre nañ ko du ñëpp ñoo ko comprendre nag mais dëgg la quoi mais il faut aussi ngeen xoolaat bu baax ni ngeen di exécuter yenn ordre yi quoi parce que doy na waar trop quoi léegi dee rek euh, mel ni ay Macky Sall ñëwuñu fi pour développer la Sénégal c'est c'est ay ay ay ay ay ay ay représentant wu de la France lañ xoolal Air Afrique Air Afrique Air Afrique kan moo ko rey kan moo ko këll ba mu dee Abdou Diouf Abdou moo rey Air Afrique complètement compagnie bu mag boo xamante ne ay avion fu ne lañ doon tam ci monde bi tey pour les beaux yeux de de de de Air France parce que benn moment Air Afrique am neexu ko donc ils ont tout fait pour kir Air Air Afrique pour que Air France mën a sukkal sukka sukkaliku quoi comprendre nga donc nos vrais vrais ennemis c'est nos frères africains mooy suñu intellectuels yoo nga xam dañoo dem jàng France bourré de diplôme ñoo ñëw dañu jaay français ñoo ñëw dañu sàcc donc ñooñu ñoo war a nekk suñu ennemi ñooñu la ñu war a xeex ñu jóge fi ñooñu la war a xeex ñu jóge fi pas un Babacar Ngom boo xamante ne dafa ñëw pour inverser comprendre nga donc en réalité Babacar Ngom ci ay droit am la nekk ko commune bi joxe suuf ba joxaale ko suufu jàmbur loolu fatu commune bi la hectares yooyu na ko delloo paysans yi parce que paysans yi sonn nañ tamit sonn boo xam boo leen mënul jàppale bu leen teg benn ñoo ko def ma xam naa ma xam nañ dina jëndal paysans yooyu na leen may ay matériel dina leen delloo seen terre dina leen may ay matériel dina leen accompagner am na ñu gën a garaaw ngom ñu nekk ci dëkk bi di def lu doy waar nañ lijjanti ñooñ te ngeen bàyyi wax bu bëre bi nii si loo xam ne leeru leen maîtriser wu leen ko xamu leen ko journaliste yi nag lay waxal journaliste yu bëri ay mbaam lañ site internet yu bari ay vue la ñuy wër parce que AdSense bi ñuy xaalis bi ñuy am ci ci ci ci ci ci AdSense yi loolu moo leen intéresse leneen intéresse wu leen man am naa ay site su ma nekkoon publier fa ay affaire doy waar ay potin ak yeneen i mbër yoo xamante ni visite yi day fes dell chaque jour mais intéressé intéressé wu ma voilà léegi ci loolu waaye su bëri indemnisé wuñ leen jotuñu seen xaalis am na si ñoo xam sax décédé nañ ça fait plus de vingt ans nañ leen fay sen xaalis waaye Souleymane Bassir Diagne un éminent intellectuel je l'ai rencontré en 2006 wala 2007 à New York c'était en présence de Jacques Habib Sy et de sa femme ak Jules Diop Rantahe et euh, les autres. Bernard, euh, conférence bu fa Jules Job doon tenir euh, restaurant africain bu Grand Bathia euh, da koy gis rek da nga koy bëgg <laughs> ak ba ñu fengey ba pare nga déglu ko boobu aw ma problème mu écoute bi nga déglu ko nga gën koo fanwat nga xam ne kii li muy wax da koo maîtriser da koo xam bare xam-xam off on a échangé ay quelques minutes après voilà depuis boobu nag gisante waatuñ mais dafa am benn sortie bu mu def dernièrement dañu wax ay institut yu ñu érigé en France wala pont bu ñu tuddee Rose Dieng wala institut buñu ñu tuddee wala pont bu ñu tuddee Léopold Sédar Senghor ni mu waxee dafa mel ni dafa opposé wu ci ma ñu tuddee wala benn était en France. Parce que était la France que pendant la Deuxième Guerre mondiale. yu bëri ñu tuddee ko ay turu allemand écriture allemand léegi bi France demee ba jommi mu daw ñëw Afrique saaku ndëmbal ci la africain yi ñëw mooy pays africain yi France colonie ñëw jàppale leen ci guerre ci la africain yi ñëw ak seen xam-xamu maame takk ay tul allemand yi di tóor africain yi bale di bonde allemand di reculer di téet ba ñu libérer la France la France d'aujourd'hui du ñu làkk français allemand la ñuy làkk bi ñu reculer allemand yi ba ba récupérer France totalement mais français lan lañ njëkk a def du changé tur yi lañ njëkk a def dindi turu allemand yëpp delloo ci turu français yi ah? du loolu lañ def est-ce que gis nga benn statut rek boo statut Hitler bu nekk France est-ce gis nga ko amul sa n'existe pas pourquoi c'est très simple parce que Hitler est considéré comme bourreau français yi waaw lan moo tax France nangul ériger benn statut Hitler ci seen sol mu bëgg ñun ñu ériger statut leer ci lan ñu ñu ñu ériger bi ci suñu sol mais Faidherbe a tué plus de vingt mille sénégalais bien sûr avec la complicité de certains euh, notables à l'époque yoo xamante ni comme ay Demba War Sall ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ay collaborateur euh, français la ñu woon tey am nañ suñu personnalité yu bëri yu nekk fii di daj nga am ci télé seen maam yi ay traître lañu woon nous on a les yaa ngi fi ñu su bëri ñu nekk journaux yi ci télé yi di fen di ratatati di bari wax seen maam yi c'était des traîtres des vrais las les archives sont là Sénégal histoire am yàggul trop histoire moderne am quoi je veux dire yàggul trop voilà donc les archives de Faidherbe doivent partir waratul nekk foofu dina mérité pour seen statut nekk foofu wala pour seen tour porté Saint-Louis c'est vrai que dëkku métis la c'est vrai que Saint-Louis am na am na histoire boo xam kenn mënundu ko fa dindi quoi mais ay statut nit boo xam dafa rey ay des milliers de personnes duñu fàttali suñu naqar non loolu duñ ko nangu loolu Macky bu intelligent woon sax du ko fa defaat léegi bu ma jógee ci loolu damay dugg ci sama diggante ak Ousmane Sonko xam nga Ousmane Sonko nit ku baax la macha allah nit ku jub la ku patriote la ku bëgg Sénégal la dañ ko war a sant ndax grâce à lui yi yu bëri commencé nañoo yeewu parce que dafa benn combat bu difficile bu metti état bi def na lu mu mën pour dugal ko état bi def na lu mu mën pour emprisonner état bi def na lu mu mën pour toroxal ko état bi def na lu mu mën pour assassiner ko mais toujours yàlla mu ngi koy suturaal xam nga bi ma commencé samay live man soutenir ma woon benn candidat je parlais pour le Sénégal su bëri nag ñu ma xamul dañ ma naa yow qu'est-ce que tu fait pour le Sénégal damay reetaan rek mais yàlla xam na man li ma def pour la Sénégal tey am na ñoo xam ne Sénégal mu ngi leen di fay ay multi millions par mois des dizaines de millions par mois loo a leen véhiculer leen defuñu un quart man li ma def pour le Sénégal wax ko parce que amul sens moo koy wax euh, ci biir loolu ñu dem ci élection yu dugg ci dugg ci affaire bi dem ba tollu fenn ma wax fan laa féete et je l'ai dit avec ferte na bu ma ko kenn ne man Sonko laay sut moom laa gëm mais woowuma kenn pour mu Sonko parce que en matière de vote affaire personnelle la dafa mel ni soxna rek yaa xool ku la neex nga tax ko comprendre dafa mel ni kër booy tabax guu bi nga bëgg kër bi nga bëgg peut ngay tabax quoi walla ba ba sa doole àttan donc ma ànd ak moom di ko soutenir di koy jàppale mais lépp ci dëgg laa ko teg ànd bi lépp ci dëgg laa ko teg lëpp ci yoon laa ko teg ma dërëm pour ma soutenir ko ah, dama gis ne rek ñi fi nekk di laaj réew mi bëgg ñu jox leen ko moom mooy ki si gën a ki si gën a jub ci group boobu noonu maanaam voilà bu fekkee ñun changement lañ bëgg bu fekkee ñun dañoo bëgg ku jub Drissa ñu waa ji nii dañ ko jox sansam ñu jox ko sansam man ma bokk ci ñu ko jox sansam c'était la première fois may voté dans ma vie parce que man dama teel a génn quoi yàgg ci àll bi élection yu bëri daan mu ko soon sa yëg wala intéressé wu ma woon ko mais bi ba xam ni affaire yi pour mu changer dëgg il faut ñun ñëpp ñu jóg taxaw ci te mbër bi si njëkk moom mooy nga élire koo xamante ni euh, jub na daal nga élire ko xamante ni patriote la nga xam élire koo xamante ni bëgg na réew mi loolu mooy mbër mu njëkk ci tànnum kuy jiite réew donc loolu waraloon sama sama sama ànd ak moom mais suñu tàggoo dafa jot suñu tàggoo jot na bés na ki tey tàggoo naa ak usmaan Sonko mais sama vote bu fekkee moom changé buñ demee élection man sama vote moom moo ko moom sama carte moo ko moom loolu moom leer na ma naa ñu ko medi te loolu man la concerné xam nga ku ma yàgg déglu xam na ne que man d'accorduma ak lu bëri ni Pastef di doxee Pastef seen dirigeant yu bëri man d'accorduma ni ñuy doxalee dernièrement dama jot ay lettres ay lettre de sanction quoi ay militants yu nekk États-Unis ak yu nekk Europe ñoo xam parti bi daf leen sanctionné ñoo xam pendant six mois wala huit mois wala un an dañ leen ne amuñu droit waxade ci turu parti bi wala def benn activité ci turu parti bi te defuñu dara te c'est des gens yoo xamante ni bi parti bi juddoo ba léegi ñu ngi ci def seen xaalis di def seen temps di am sa problème ak seeni jabar ndax parti Pastef ñooñu tey parce que am na ay yenn yoo xamante ni ñu ngi leen di ñu ngi xeex ñooñu parce que ñoom dañoo bëgg a nekk coordonnateur bii réew wala bii dëkk wala bii ni ñu ngi liggéey dëggantaan ñu xeex leen parce que ànd ak Sonko li am ci yeneen parti moo ñu neexul li am ci yeneen parti discrimination bi am ci yeneen parti neexuñu léegi si on voit les mêmes choses si biir Pastef man duma ci d'accord man Ousmane Ba duma ci d'accord document yaa ngi fii mun naa ko publier quoi dinaa ko sa publier comme ça ngeen gis la may wax donc bés ni ka tey man sama ànd ak Ousmane sonkoo jeex na quoi complètement jeex na quoi man àndatuma ak benn politicien kenn corrompre ma nag kenn corrompre ma kenn corrompre ma man du ma ku ñuy corrompre amul kenn ku ma corrompre tey laa gën a bañ ndaayam gën a bañ Macky man man tey laa gën a contre Macky tey laay gën a xeex Macky parce que Macky Sall ñoo yeblu ñun Haalpulaar yi daf ñoo manqué loolu moom la il crée même des faux comptes di def ay tulu Haalpulaar di saaga yeneen xeet yi pour ñu bañ xaal pulaar pour dafa andi ay guerre civile pour di andi ay problème ci biir diggante ak ak ak ethnie loolu fëtu Macky Sall te beaucoup de jeunes xaal pulaar tombe nañ ci piège boobu ça m'a fait mal au cœur avec la complicité de certains journalistes et de certains sites internet ñoo xamante ni ñoom ñooy promouvoir boobu haine ay non man sama xol nu mu mettee ci loolu mënu leen ko sax comprendre donc je vais continuer à combattre Macky Sall mais man bokkuma ci benn tariixa bokkuma ci benn parti ànduma ak benn politicien donc pour de dire moi ce que je veux dire je préfère bàyyi Sonko mu dem demam Pastef dem seen dem ñeneen dem seen dem man ma continuer sama combat pour le Sénégal donc loolu ça ma me ma gën a libre ci lu ma bëgg wax ma koy wax mais ba tey jii ñuy wax amul benn de sin bu gën a jóg Sonko biir Sénégal ça n'existe pas te feeg mu ngi continuer léegi muy def ni man sama carte de vote moom moo ko moom bëggoon naa ko leeral mais bu neexee yàlla man comme waa Pastef lu ñu wax rek bu buñ tudd turu Sonko pour siw ok nañ leen jàppale ci lool doo ñu tudd turu Sonko amul benn problème vous comprenez voilà Sonko yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla aar yàlla na ko yàlla protéger mu continuer combat bi du yomb nag du yomb ça sera très mais nagam lu muy gam rek Abdoulaye Wade opposé na plus de vingt-huit ans muy opposé avant muy nekk président wala même sa trente ans avant muy nekk président lépp xëyul sotti quoi dafay jël temps dafay jël ay obstacle jël ay problème yu bëri lay jël avant tey ngay ngay ngay ngay mën a vraiment réussir li nga bëgg quoi donc amul abandonné ñi nga xamante ni j'étais pour Sonko continuer à le soutenir continuer à prier pour lui ñaanal leen ku baax parce que vraiment tey ñi nga xamante ni dañoo bëgg a réew mi yëpp moom mooy ki si gën a jub monsieur mais propre mais man Ousmane Ba je suis plié avec lu voilà merci beaucoup jaa ngeen